Ibrahima Jabaxate kon euh, ñu ciy jéglu euh, du mujj sotti euh, xabaar bi mun waroon a baaxe mooy camion bu jóge woon Mali daal di saaraan yegg ci genn kër nag xale yam fa fekk mu daal ci fiir ñett ñu daal di faatu ci saa si loole nag taxoon na ba waa dëkk ba nag defoon foofe blocus ca yoon wa dinañ ci dellu si ak moom ci beneen jotaayu xabaar fukki nit ak ñaar léegi ñoo faatu ci accident wu Palmeo bu woon ci suba tey jii ministre bi nag euh, demoon na fa dina dinañu leen dégtal ay kàddoom euh, léegi waaye nag ca hôpital euh, Amadou Sakhir mbay ba nekk foofa nga xam ne fa lañ yóbbu blessé yi ñu bëri nag ñu ngi wéy di ñëw nag seet si nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñaawlu nañu nag yoon yi xataay bi mu xatitam Nafisatu Njaay li mu ñi ñàkk seen bakkan ci accident bu métti bi nga xam ni mi ngi am ca diwaanu Palmeew mi ngi wéy di yokk mi ngi jugee fukk ak benn àgg ci fukk ak ñaar ñi nga xam ni nag ñoo am ay gaañu gaañu ñu ngi jamono ji ci hôpital Amadou saxiit mbay bu Louga ñu leen di fa faj Malick Sall ñàkk benn mbokkam ci bile accident moom nag li muy naqarlu mooy assurance bi nga xam ni moom la rescapé yi di faral di ñàkk. ki gaañu sama doomu najaay la sama rakk la ndax euh, magam bu jigéen man maa koy denc mooy sama aaw ñi faatu metti na lool waaye nag am na ñeneen yoo xam ne ñooy gën a metti lewaat mooy ñi nga xam ne dañ cee jóge laago yoo xam ni dootuñu taxaw dootuñu dox te am lu ñu yoroon ci kër te waa kër ga mënatuñoo dem di leen fa baax te mënatuñoo liggéey ñu tam dafay metti te fii Sénégal assurance yi lu mat a waxal la yoroon ci te waa kër ga mënatuñoo dem di leen fa baax te mënatu mënatuñoo liggéey ñooñu itam dafay metti te fi Sénégal assurance lu mat a waxal la. Abdou Ndiaye mooy président regroupement chauffeur yu Kébémer moom nag jàpp na ne liy faral di waral accident yi ku ne am na ci wàll. tey de wax dëgg yàlla Sénégal gépp yeewoo nañ aku tiis muy accident bi mu nekk accident bu metti nag bon ñu xam ne nam na mu suñu borom la woon allah kulli alin yàlla moom li mu dogal dogal na ko ba man na jaar ci benn voie dem te duñ jota dara jamono ji nag ay militaire ak ñenn ci askanu Louga mobilisé wu dem ci centre transfusion sanguine bu hôpital Amadou Saxi ngir rek may fa deret ba mën a sauver ñi nga xam ni ñoo am ay gaañu gaañu Nafisatu Ndiaye Louga rajo Futur Média. ministre bi mu yeggee dem na seeti ñooñu nga xam ni ñoo tëdd ca kër docteur nag euh, gannaaw accident bi bi mu amee li koy faj dana ci bekk dana ci bokk permis à point bu ko defee. Euh, ku topp sart yi ñu dindi say point ba nga jeexal tàkk dootoo toog ci volant ñu déglu ko El euh, Hadj Malick njaay ci micro satu Ndiaye. wax dëgg yàlla lu métti ci xol la. jaaxal askanu Sénégal la li nga xam ne moo nekk di xew ci suñu ay yoon. ndax comme ngeen ko xamee accident yi bari dana ñu wax yoon yi dinañ wax oto yàqu yi lépp dëgg la. mais malgré loolu yëpp comportement chauffeur bi la. ndax yoon bu yàqoo sax chauffeur mën a def ndànk. oto bu yàqoo sax chauffeur mën a dem defar ko balaa ñu daw. te ñu xeex bi fi ñu ko war a gën a concentré mooy naka la ñu fexe ba suñu ay chauffeur am prise de conscience boo xam ne dinañu xam ne yabu ñu ay weñ yabu ñu ay yabu ñu dara lu dul ay bakkan ay doomu aadama bi ñuy ñëw on a fay assister ci même type d' accident à moins d' un kilomètre ou de deux kilomètres ci lieu accident beneen chauffeur camion bu def exactement la même chose de justesse la éviter oto bi nekkoon ci kanamam ci saa si laa woote ne nañu ko arrêté fu montage yi ci yoon nañ fexe ba bloqué ko arrêté ko jël permis nañ di nangu ay permis te dinañu continuer di nangu ay permis parce que dafa am comportement yoo xam ne amul verbalisation waratoo dawal foofu la ñu nag parce que dafa am loo xam ne mënatuñu ko nangu ci réew mi centre de contrôle technique yi ñu ngi koy déployé dootuñu toléré yenn manquement yi centre de passage d' examen yi nit ki nan amee permis code de la route bu bees bi dinañ ko déroulé ma wax leen permis à point am ci mois de septembre. mu nekkoon euh, El Malick Ndiaye ministre bi yor wàllu transport. Euh, kii euh, ñi ñu boomoon fii ci Caaroy anam wu ñaaw woo xamante ne nii dañoo xeexaloon France ba noppi nag doon laaj euh, seen yelleef ñu daal di leen di fetal loolu nag coow judd ci gannaaw ba France waxee ne nag am na ci juróom-benn ñoo xam ne nii France lanu deyal la ñu wax nag Ousmane Sonko ne leen nag loolu tànn ci juróom-benn képp nag yabaate la groupe boo xam ni fàttaliku Caaroy 44 moo tax ñu tuddee seen bopp BMG 44 BMG 44 ak professeur Ousmane Ibrahima Thioub moom nag euh, professeur Ibrahima Thioub dafa jàpp ne nag France archive yëpp la war a joxe wërta am lu mu joxe ni ki ni ñu ko defee woon ba fi François Hollande di ñëw waroon na taxaw foofee Ibrahima Diame. bëri nañu borom xam-xam historien analyste yi nga xamante ni d'accord nañ ak premier ministre Ousmane Sonko ci taxawaay bi mu am ci France li jëm ci mbirum histoire tirailleurs yi ñu boom ci kambu Thiaroye professeur Ibrahima Thioub ancien chef du département France ne wala liggéey bi nga xamante ne soldaaru Afrique defal nañ ko France bëgg a reconnaître juróom-benn tirailleurs yu nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ñoo dee ngir France te France ci boppam moo leen boom. France moom dafa am néewal gum ci namm te néewal googu ba léegi dañagul waaye nag France ki mbiram la ñun ñi nga xam ne ñun mbir mi suñu mbir la ñoo ci war a jël suñu ay matukaay bañ cee xaar France lu mu ciy def ak lu mu ciy namm ak lu mu ciy def. Matador moom tamit mu ngi bokk. bokk ci benn mbootaay bu ñuy duppee BMJ 44 mi inspiré wu ci caaroy 44 moom nag muy ñaawlu bu baax a baax lim boobee France bëgg a yëkkati te moom nee na xaarul leneen lu dul ñu wax histoire bi ni mu demee. way loolu la ñu mës a xeex. parce que ba léegi nii. histoire bi dafa bëri ay histoire. ñi débarqué ñi dee si en France. durant la guerre. dañu war a xam ñaata lañu. leeragul bi ñu ñibbisee Sénégal. les tirailleurs qu'on a tués dans le camp militaire de Thiaroye xamaguñu nombre boobu ñaata lañu. ci atum 2017 ki fi nekkoon président France di François Hollande jébaloo na ki fi nekkoon njiitu réew Sénégal di Macky Sall benn pàcc ci archive yooyule wante professeur Ibrahima Thioub di laaj nag ñu joxe lépp li nga xamante ne moom moo aju ci archive tirailleurs sénégalais ndax ñu mën a bindaat istoire bi ni mu amee. RFM rajo bi jaamu seen soxla. des na ci dellu si nu mu gën a yaatoo ak sunu gan ci njeexitu xibaar yi tuuba ña dëkk ci xayra seenu mar wax nañ leen ko fii lu dul benn du ñaar boobee ba léegi nag saafarawul dañoo dem ba yaanaa mar moo tax naka ñu mujj dem eh, jàpp benn forage nag daal di koy eh, coupé nee nañ ñaari bis lañu may eh, kilifa yi ñu indiwaat ndox mi foofu ndax yëf yi yéeme na ba jéggi dayo reportage Papay Diaw. askan wa nekk ca xayra góor jigéen mag ak ndaw ñoo dem ca forage ba nekk ca koñ ba daal di koy coupé ay waxtu li ko waral nag mooy mënuñoo dëkk ci koñ ab forage ne fa te ñoom mënuñoo amum ndox mais li ëpp si xayra jëfandikoo poste forage population bu dajale xaalis bu takk def ko si ndox mi def ay quelques mois affaire bi taxaw de kenn xamul xam nga rek si lan la bokk bi ñu ñëwee objectif bi ñu amoon mooy tëj ko définitivement mais biñ ko tëjee d'ici ba des temps la police def li nga xam mooy réaction mu ñu waxtaan sunu doon yi yanu nañ baag ak sunu goro yi ba wopp jënd nañu ndox ba amatul dërëm buñ ko jëndee yore seen kàddu di jili sëy di naqarlu pat pataaral gi nga xamante ni waa maawu raxmati ak ofor moom lan ndekkee moom nag nee na lii di xew fii seen loxo jogu ci amul benn autorité bu ne déggoo li ñu gën a métti du benn membre boo xam ne dafa jógee maawu raxmati amul benn membre boo xam ne dafa jógee ofor ñëw fii amu fii loolu nag dafay wane ne ñun waa xayra ñoo respecté wu ñàkk respecté gi nag liñ bëgg xam fan lañ ko teg gannaaw ba police ñëwee daal di waxtaan ak ñoom askan wi daal di taalaat forage ba ñoom nag nee na jox nañ kilifa ñaari fan ngir ñu lijjanti seen ñàkkum ndox googu lu ko mooy rek dinañ delsiwaat ca forage ba daal di koy couper ndax ñoom neneen buñ mënta amam ndox moom jaratul forage ba di fa tàkk RFM Touba mbay Mbaye Diaw li ko dale suba dinañ leen jox ñaari camion na yu leen di jàppale ci euh, ndox mi foofee waaye buñ màggalee ba noppi dinañ daal di gasaat beneen forage boo xam ne nag euh, moo leen di gën a dimbali la Lamine Gueye wax moo yor wàllu jokkoo gi ca Ofor foofee ca Touba ñu déglu ko ak euh, Mamadou Omar Ba waaw F5 la bu xayra foofu la manifestant yi demoon tey fay forage bi biñ ko fayee nag dañ ni ñoom du nangu ñee am ndox ñoo amuñu ndox ab diggante la bu amul ndox ñoom ñoo ñaxtu ci biir ñaxtu boobu nag li ko waral mooy ku na xam na ni xayara dañ ko lëkkale ak FKB mooy forage Ndiogakebe bi forage bi ku na xam ne ni dafa panne ci paan boobu ci la jóge yàqu état nag fas na yéene ginnaaw màggal buñ màggalee ba noppi des na ko defaraat beneen forage diggante fi forage bi nekkoon ak fiñ koy defaat bi cinquante mètres la foofu la leen sëñ bi rëddal ñoo dafaa def beneen forage bu bees pour mu renforcer forage boobu ngaas moo yàqu beneen ba ci toppit mooy am na beneen forage bu tudd janatu salaam ci kër sëñ Saalu ci ginnaaw hôpital bi boobu lañ fas yéene raccordé pour mu ñëw ci xayra buñ ko fa defee bu soob la forage bu bees la bu mag la bu am doole suñ ko fa indee dana tax xayra problème yi dana saafaraw beneen ba toppit ndax yónnee na ñaari camion suba à partir de suba dinañ ñëw xayra pour jàppale askan wi ci manque ndox mi ba loolu faje ndax fas nañ yéen daal balaa màggal foraasu janatu salaam dana dox ca danañ ko raccordé ak foofu yi nga si fu mooy am ay jafe-jafe ci biir xayra ndax ku na xam ne ne FKB yàqu na kon dañ ko raccordé foofu bu ko defee foofu mën a wàññeeku ba kero ñuy defar forage bu bees boobu ñu war a def gannaaw màggal muy FKB boobu ñu changé war ko defaraat beneen forage bu bees xayra googe ak daaru xuddoos ak daaru marnaan yëpp fukki minute ñaar moo fa ci juróom-ñeenti waxtu FM kumpa jeex na. Diomaye Faye ak li mu yor ci alal trois cent soixante millions la ñetti téeméeri million ak juróom-benn fukk bu ñu xaymaa lépp. këram gi nekk Mermoz ak bagages yi mu am yëpp am na ñaari bor nag ñaari banque benn oto la am benn kër loolu nag euh, waa conseil constitutionnel ñoom ñoo ko génne nee na am na bor boo xam ne nag toll na ci fanweeri million bu mu ameel ñaari banque kon conseil constitutionnel siiwal ko gannaaw moom ci boppam bi mu defee déclaration de patrimoine Abdourahmane Diallo conseil constitutionnel daal na siwal li nga xam ni loolu la njiitu réew mi daal di yor ci alal ci journal officiel 25 juillet 2024 wax nañu lépp li nga xam ni Bassirou Diomaye Faye am na ko njiitu réew bi ñetti compte bancaire la daal di am benn compte courant bu UBA mu ngi fay am lu ëpp juróom-ñaari million ñaari compte ci BICIS beneen bi épargne la 2690 francs la fa yor beneen compte courant bi lu ëpp fukk ak ñeenti million ñoo fa nekk Bassirou Diomaye Faye nag am na ñaari yi nga xam ni ci ay banque yu mel ni BICIS huit millions la fa ameel bor dal na fay ba desee ko six millions ak li tegu ci UBA foofu tamit am na fa trente millions wu bor dal na fay lu toll ak juróom benn million njiitu réew mi nag di xamle ni benn kër la daal di am mu tabax ko ci deux cent mètres carrés kër googu nag ci mermose la nekk parcelle bi mu ngi koy am syndicat impo ñoo ko daal di jox loolu buñ ko xaymaa cent quarante millions la terrain bi di jar tabax bi moom cent trente quatre ak li tegu la jomaay di xamle ni tamit am na ñetti terrain benn bi ci ñaaw ci atum 2017 ñetti millions la ko jëndee ñeenti hectare ak li teg ci Sanjara mu ngi koy jëndee 15 millions mu def ci ab investissement bi nga xam ne toll na ci 29 millions ak beneen bi nga xam ne 202 mètres carrés la ci Kër Moussa ci fu ñuy wooyee Daral Pël 2 mu ngi koy jëndee ay jamono 700 000 maanaam ci atum 2009 waaye tey jii buñ ko xaymaa terrain boobu jar na ci lu toll ak million million 700 000 ki fi nekkoon secrétaire général bu Pastef di xamle ni benn oto la daal di am marque Ford Explorer Platinum mu am ci atum 2022 mu jëndee ko ci lu toll ak 19 millions tey jii bu ñu xayma lépp li nga xam ni Bassirou Diomaye Faye yor na ko balaa muy falu ëpp na 360 millions de francs CFA ci li nga xam ni tamit ameel na ko bor maanaam ñaari banques yi boo ko xayma ëpp na fanweeri millions jërëjëf euh, Abdourahmane euh, Diallo nee na du nit kuy dajale mu des nag euh, bis buy wàcc ñu xam nag lu ci tege wéy ci biir xibaar yi ak usine Domitex ka bi nga xam ni ay ndimo lay defar ñaari milliards la ko gouvernement bi di jox doole la ko ko bu ko defee nag mu mën a gàll ci emploi lu toll ci deux mille emploi maanaam ñaari junniy xëy dana tax nag. ci yaakaar ji émigration clandestine bi ñii di mbëkk wuti Espagne daal di wàññeeku ñaari ministre demoon nañ ci cérémonie ba tey ji muy agriculture ak industrie euh, souveraineté alimentaire itam souveraineté vestimentaire maanaam euh, li ñuy sol yëpp usine boobee di ko mën a ràbb bokk nañ ci leen ciy diir faatu Mbow. secteur ñeel wàllum textile nag nekk lu soxal ñi nekk ci wàll gi tax ba ñu daal di dekkaliwaat lii di usine bu Domitex ka bu kawoon bu sukkandikoo ci kàddu Serigne Mboup di repreneur bi lu ëpp ñaari junne yu emploi dinañ ko créer ngir xeex jële fi chômage naka noonu tamit mbëkk mi. relance activité Domitexca suñu yitte la di complexe boo xam ni regroupé na euh, atelier de production textile boo xam ni mën na accueillir luy toll ci ñaari junni ndaw mën nañ ci am xëy dinañ fexe nag ba mu dundaat ba mel ni mu meloon ba fexe daal ba Sénégal am souveraineté vestimentaire. maanaam lépp lu ñuy solo ak ni ñuy solo jóge fii ci réew mi ngir régler problème chômage ndaw ñi ak euh, immigration clandestine. ngir jàmmaarloog nag lu ñuy woowee concurrence déloyale jëwriñ bu ñu gàllu wàllum industrie ak commerce di Serigne Gueye Diop di xamle ne état bu Sénégal dina jàppale bile projet naka noonu tamit protéger lii di industrie nationale la. gouvernement bu Sénégal dafa taxaw tem ngir soutenir industrie sénégalaise euh, te li ñuy tàmbalee ba indi ay politique de protection suñuy industrie aar leen bu baax a baax te amul benn industrie buy bàyyi ko bitim réew bu ñuy autorisé muy indi fii produit am di def concurrence déloyale dinañ voté ay loi ngir protéger suñu industrie yi ñu am fii li ci mel ni industrie laitière ak yeneen waaye itam subventionné leen. jëwriñ bu ñu gàlloo wàllu mbay bi nag ci geneen wàll gi di Mabouba Diagne di dalal xel yi ci lu jëm ci wàllu production bu doy ci wàll coton ngir ñu mën a garantir lii di souveraineté vestimentaire. pour assurer notre souveraineté. pour ñu assurer euh, moom gi ñu moom suñu bopp ci wàllu euh, li ñuy sol ak li ñuy lekk ak li ñuy dundee euh, man bëgg naa leen assurer Serigne Mboup ma koy wax fii ci département bi bëgg nañ ci renforcer dynamique biiru industrie waaye itam soutenir développement filière coton te loolu ñu ngi ko bëgg a jaarale ci maîtrise bu ñuy am ci ndox mi nga xam ni dinañ bay lu bëree bëree bëri fexe daal ba Sodefitex nekk ab kàngam ci wàllu coton. ñaari milliards ci sunuy koppar la ñu daal di dugal ci relance usine bile lu ñu mel nag day bokk ci luy suqali anam bi nga xamante ne liggéeykat yi di liggéey